travers li nga xamantene ne Sénégal da ngay dégg wax bu ne façon audio bu ne ci na façon bu ne mais je ne peux pas comprendre lu tax ñuy singali parti ben parti te bo xolé ki nga xamantene modi El Malik. boko da ngay japp ki nga xamantene ne au moins donc bu jappé El Malik, daal di koy enfermer tej ko da ngay dissoudre li nga xamantene

ñuy japp wa pasti rek rek rek rek man su may analyser si loolu damay dal di bañ carrément ci li nga xamanté modi di côté bobu nonu malgré ñom ñu ngi offenser parce que tay rew mi nénal dafa nek ci ay règles ak ay droits donc képp ko xamanté gis nañ respecté li nga xamanté né modi ay roi ak règlement yu dëkk bi yoon la justice wara definitely. def liggéeyam mais ñi nan euh, opinion libre li leen dal di jappé manam seen xalaal la wax par pour ak rew mi dal di Boudé sen seen nagn daldi wax motax tax ñu daal parce que li ñu gis tout d'abord ni ñëw exactement si El Malik Ndiaye parce que mhm. aujourd'hui je pense que déglu nga ko exactement euh, ñi ñi ngi weddi que ni El Malik Ndiaye la ñi naan du El Malik li nga xamni tam itam biroloon ko audio bi nga xamni tam itam na euh, environ peut-être bien trois minutes aussi gis nañ ci audio bi mhm. euh, audio bi nga xamni tam itam yépp que ni tey mu doon woté neen génn parce que tey moo nekkoon bëss bu mujju bi ndax loi bi nga xamni tam président Macky Sall na daal vote assemblée nationale day daal di gën a mën na moom li nga xam ne que moo di pencum na réew ma alors euh, audio bi est-ce que sentir nga si kaaramak que ni y avait euh, peut-être benn appel à l'insurrection xam nga tey appel à l'insurrection boo koy dégg tey ñu bëri ci Sénégal ñu ngi yëkkati kàddu di wax te kenn musu jàpp kenn musu wax kaay leen wuyu si mais appel à l'insurrection képp ku ko yëkkati nañ la war a mun a woo mais est-ce que qu'est-ce mon nekk def appel à l'insurrection li appel à l'insurrection yow jàpp nga appel parce que audio bu ma dégg non audio boobu dafa am doole audio boobu non dafa am doole mais du spécialiste en son ba ma xam carrément mom la parce que dambo sa jinoon nañ ko fi li nga xamanteni modi ay wax ñu dem ba ci biir du mom donc ba tay bu ñu fàtte ñu ngi ci ère numérique ñu ngi ci ère digitalisation ce qui veut dire que lepp mën nañ ko monter lepp mën nañ ko defar lépp mën nañ ko defar ñu ngi si ère numérique bu ñu fàtte loolu ñu ngi si ère digitalisation malgré li nga xamante ne euh, ñun Sénégal euh, donc yaa ngi douté exactement si li nga xam rek euh, modi euh, justement euh, efficacité wala comme ça si véracité wala comme ça si authenticité li nga xam rek modi audio bi. wa mang ci si am njàpp parce que ki ma déggu tamit voix yi xaw nañ mengo mais gëw ma ni mom la quoi parce que man tay gëw ma ni ba tey moom la. wa mais voix yi xaw nañ mengo mais man gëw ma ni mom la quoi mais xam na né voix yi xaw nañ mengo motax may la duma spécialiste en son ak li nga xamantene ne ay voix affaire yoy noonu mais li ma la mëna xamal modi waru ñu nangu di singali ben parti politique. Hmm. kese te mu am ñeneen ak ñeneen di wax li ni mel parce que mo lu mu wax ni man gëm na né grawul graw bobu non way amna na ñeneen ñu wax lu gëna graw li actuellement dans ce pays lu El Malick wax amna ñu wax lu gëna a pire loolu comparaison est raison wa comparaison n'est pas raison motax tax la peut-être ñom tay tollu nañ fi nga xamanté moy lu ma la bëgg firnel les patriotes su may def analyse politique bi may def actuellement ci parti bobu parti bobu nee la dafa am doole ku ko waxul ci Sénégal waxoo li nga xamante ne lu politique Sénégal les fois nañoo am doole au niveau du pays mais aussi à l'extérieur au niveau international hmm. donc erreur bu mu munti def rek ñoom ci ñoom seen biir erreur bu ñu munti def erreur la nga cash parce que comme lu la wax ne bugul ku koy ah ah ku koy mais ku koy yàqal ku ne ku boo koy yàqal mu gis ni carrément yaa ngi koy yàqal bu yàggee da lay fu mu amee occasion ne la fa ndiib rek da la fay jàpp. et que les Pastef loolu stratégie euh, moom moo leen ko may cest à moo moo moo moo su ma ouvrir benn prêche boo xam ne itam tax na ñu leen jàpp benn par benn seen ay ñooñ. parce que Sonko mu leen ko doon wax que ni xam ne li ngeen di bind xam nañ li ngeen di xam nañ li ngeen wax xam nañ li ngeen di hmm. bind. bind bi tey teg leen si loxo ki nga xam ne moo di Bassirou Diomaye Faye kaddu yi teg leen si loxo ki n'a xam ne moo euh, justement Birame Souleye euh, audio bi teg leen si loxo ki n'a xam ne moo di El Malick Ndiaye donc El Malick tey euh, il risque lourd parce que mi ngi woon si li nga xam ne moo sous détention par rapport ak liberté provisoire bi nga xam tam am ko récemment mm-hmm. pour dire que l'avenir de ce parti est en suspense effectivement l'avenir est en suspense parce que si on voit li nga xamante ne moo les gens ñi nga xamante ñoom lañu nekk di jàpp sont des personnes clés au mm. niveau de cette partie mm. sont des personnes qui de ressources fiables à travers le communiqué à travers leurs informations donc si on passe à cet acte des arrêts qui sont tenus à ces personnes on va se poser des questions sur au moins l'avenir de cette partie à travers au moins l'élection donc si dem ba di nga des ñoo di cadres qui nga ñoo bu yàgg c'est une question pour may poser sénégalais bu ñu continuer di jàpp ñi nga xamante ne ñoo di cadre yu gën a am doole biir Pastef est-ce que bu yàggee Pastef du daanu question la rek bi ma poser sénégalais yi donc ce qui veut dire que malgré li nga xamante ne ñu ngi jàppal ki nga xamante ne ñoo di cadre yi mais tiwul bëgg-bëgg sénégalais yi mu ngi am ba tey ci Ousmane Sonko. il faut tamit ñi nga xam euh, loolu maa ngi gis commentaire bi euh, kii di ki nga xam ne di Christine euh, Gomis. mu la mhm. jàpp ni.

bëri donc ce qui veut dire que moi ñu ngi koy jaajëfal bu baax baax réaction am di peut-être nous continuer de bëgg nga xamante ne leader am ndax ku nekk si ñun am nga choix xool ki nga bëgg andal wala xol ki nga ne gëm nga ni boko voter les mën représenter dignement le pays waaye té mëna a li nga euh, la suite donc pour El malik euh, lan ngay xaar exactement que euh, les charges peuvent être lourdes franchement parce que et son bi ni mi ngone déjà si li nga xam comme que di sous contrôle judiciaire waaw xana di tambalé si ñi nga xamante ne yàgg nañ leen jàpp ba tey kenn waxul seen cas fàllu dafa am ñi nga xamante ne ñu ngi si biir prison yi bëri nañ trop trop trop trop trop di ñaan ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi ngir yàlla war a suuli comme askan bi yëpp lu ñu koy ñaanee ba si man di ko tàmbali si man le jeune journaliste au moins mu daal di dimbali ñi nga xamante ne ñoo di parents yi si seen ñàkkareyu doom waaye tamit si nga xamante ne daal nañ tëj tëj lañ leen si mbirum politique bu doon ay infraction lañu def wala ay délit c'est normal ñu daal di dal seen kaw. mais su fekkee mbirum politique kese kese kese kese moo ko laal ñu ngi ñaan yàlla ñu daal di leen bàyyi carrément ñu daal di retourner. amiin seen i activité wala ñu retourner seen i famille su ma ñëwee si nga xamante moo di El dama la ne état du Sénégal actuellement njiitu réew mi képp ki nga xamante ne opposant nga nga bëgg ko def naka su dul noonu wala nga bëgg yàq li nga xamante ne moo di liggéeyam su amee benn occasion bu gën a tuuti bi nga xamante ne erreur bi nga def. da koy utiliser daal di lay woo nice nga daal di wuyu donc ñoom si boppam opposants yi ñoo war a xoolaat bu baax a baax yenn message yu ñuy divulguer yenn information yu ñuy joxe ñu bañ a topp seen xool wala seen bëgg-bëgg. Hmm. parce que tey boo toppee sa bëgg-bëgg demook sa conscience ba nga wax li nga xamante ne waroo ko wax wala nga def li nga xamante ne waroo ko def njeexital bi saa su ne si yow lay reposer wu. beaucoup moo tax ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm waaye tamit di leen xamal ni carrément. ñu ngi si bi un peuple but une fois. alors c'était Abdoulaye Ba il est euh, un analyste politique en même temps aussi euh, journaliste de profession merci beaucoup chers téléspectateurs et voilà chers téléspectateurs li c'est nekkoon Midi Info Boutaille. vous merci beaucoup de l'avoir suivi c'était euh, première question de la semaine.